Gorgui Yacine Boye maa ngi lay nuyu. soxna si maa ngi lay fay. di nuyu waa euh, euh, Rewmi FM. voilà nga nekk euh, secrétaire général bu syndicat libre des travailleurs du groupe de la poste tey jii ñu la doon laaj yan mooy lan mooy jafe-jafe yi nga xamante ni postiers yi ñu ngi koy daal di jànkonteel ci yaatal. waaw poste de entreprise euh, boo xam ne entreprise nationale muy patrimoine nu Sénégal yëpp ñëpp ñoo ko bokk muy service public waa jamono yi ñu toll nii de dafay dund situation yu métti surtout ci côté financière bi ñuy dundu di jànkonteel situation bu catastrophique li indi loolu nag mooy une mauvaise gestion d'après le constat des travailleurs parce que on a mis en place un comité dañ tegoon comité boo xam ne dafa regrouper toutes les organisations social yu nekk ci entreprise bi amical comme syndicat direction générale tamit yónnee fa ay directeur ak ay chef de service ñu toog ñu càmbar entreprise bi defar un document de synthèse boo xam ne def nañ diagnostic mooy sa càmbar nañ entreprise bi si fànn si situation def analyse financière mooy ñu gësu xaalis bi ni muy ñëwee ak li ñu am ak suñu gafa ñu gësu nan la ñuy gérer nit personnel bi mooy nit ñi waaw jàngat jàngat euh, recrutement yi jàngat départ yi jàngat lépp jàngat qualité yi ak capacité personnel bi ñu jàngat tamit suñu relation ak état bi mooy la politique de l' état dans l' entreprise nationale état bi lan na war a mën a liggéey ak force ak ak ak ak ses ses démembrements ñu jàngataat yu bëri yoo xam ne fànn yu bëri yi nga xam ne dafay laaj nan la ñuy développer entreprise mooy sa politique stratégique loolu yëpp ñu tënk ko def ko ci benn document. gannaaw jàngat yi nag ñu génne si ay solution mooy ay ponk yoo xam ne dañ ko teg ci table bi pour wax ne buñ si jàkk sukkandikoo dinañ sauver entreprise bi mais nag li tax ñu def jàngat boobu dañ toog constaté ñu xam ñëpp sénégalais yëpp xam ko suñu client ak suñu partenaire état bi ñëpp ñuy fréquenté bureau de poste xam ne poste fi mu am na problème yu garaaw te li si gën a fës mooy da ngay ñëw si bureau de poste ñu ne la xaalis amul problème mu boo koy jàngat ñu ngi koy jëlee fu sori bi état sénégalais en 2014 octobre 2014 état bi dafa ci jàngat boo xam ne daf ko jàngat les entreprises nationales surtout publiques yi nekk Sénégal. Mm. mu tudd si lu mel ni poste ne dafa nekk si en difficulté. kon entreprise bu nekk en difficulté il faut kon nag ñu teg ay fànn yoo xam ne na lañ koy génnee si difficulté yi sauvé ko balaa muy gën a ndërmeelu. 2014 ba léegi comité bi teg nañ ko mooy un comité xam ne les ministères concernés ministère finance ak ministère économie numérique ak les services concernés ak des représentants de la direction ñoo fa newoon ñu si jàngat di si jàngat ba fin deux mille vingt si lañ si soog a intégré le représentant du personnel comité boobu def na les conclusions tekk si table chef d'état ne nii pour sauver poste pour bañ mu gën normelu situation bi mu toll nii parce que ñu amul umpalewu benn sénégalais que poste fi mu ne nii ne bu ñu ne sax mën nañ wax ne daanu na mais ngi fayeeku ba ngi ñu ngi xëy bien vrai que ne activité bi ralentir na suñu trésorerie bi dafay sooxe mais si document boobu li ñu tegal chef d' état chef d' état jëlagul les décision les décision fortes comité boobu c' est pour restructurer post bi pour ñu restructurer il faut <coughs> ñu def li ñuy wax ñu xool ndegam plan sociale war na mën a am. ñu xool nan la ñuy redynamiser ay filiale yi joxaat leen beneen élan suqaliwaat leen nan la ñuy suqaleewaat poste bi mu mu xam ne day dem. relancer wu sur le plan économique ba pare du problème yi yi muy dundoo lépp dootu ko am tamit nan la ñuy innover nan la ñuy créer de nouveaux produits de nouvelles euh, plus-value euh, valeur ajoutée document yooyu yëpp pare na ñun def nañ document en tant que personnel état bi def na document boo xam ne comité bay ko def mais nag fi mu ne lii problème bi mooy que ne bi comité bi pare ba léegi ñun ñu ngi toog di déglu état mais état ba léegi jëlagul les décisions fermes et urgentes loolu mooy problème parce que entreprise nekkee si ndër moylu chef d' état constaté ko ak ak ses ministères et ses services euh, concernés ñu jàngat ko depuis 2014 ba léegi sa fait plus de léegi mu di yegg si si fukki at kon dafay doy waar kon parce que pour sauver ko nag il faut que mu am décision yu for yoo xam ne jàngat nañ ko parce que Sénégal ñàkkul ñu mën a relancer activité wu entreprise boo xam ne dafa ndërmeel mu loolu la ñuy wax restructuration wala recapitalisation d'une entreprise foofu lañ toll ñu ngi ñaan yàlla chef d'état jël ay mesures fortes et urgentes mais balaa loolu tamit ñun en tant que partenaires sociaux ñun représentant personnel bi ñun yàgg nañ kaas wàcc ci terrain bi alerte leen interpeller leen ci la gestion de l'entreprise wax leen ne ni ñu koy doxalee am na loo xam ne bu ñu ko continuer entreprise day daanu ñun ñii yëpp xamoon nañ ko depuis plus de dix ans ñu ngi interpellé depuis plus de trois ans tamit gën nañu accentuer suñuy interpellation à toutes les organisations sociales wax nañ ci entreprise informé nañ alerté nañ mais dañu sentir que ne état bi dafa manqué volonté politique boo xam ne war dubluwu la si sauver post bi ñun loolu lañ constaté non seulement recevoir ñu en tant que partenaires sociaux recevoir gunu mais document bi ñu ko jox dañ na Sénégalais mën nañ réfléchir man nañ tëgg document mën nañ def forum man nañ def projet mais souvent les documents soon ne sont pas évalués wala gëstuñu ko bu baax wala dañ koy jël def ko ci droit <coughs> comité interministériel jox na ko document les conclusions des travaux ARTP certifié na ARTP gëstu na ci tamit ñëpp jàpp nañ ci xalaat nañ def nañ lépp mais ñun ñu ngi déglu chef d'état c'est seul l'état moom la ñuy déglu pour mën a sauver entreprise parce que ñun en tant que travailleur joxe nañ suñu xalaat direction générale joxe na xalaatam décliner vision à travers un plan stratégique de développement les différentes directions et services concernés def nañ un plan de relance de l'entreprise donc ñun en tant que travailleur joxe nañ suñu xalaat léegi nag on ne peut pas faire la poste mënuñu defar poste bi les postiers mënuñu defar poste bi sans lenn rek la ñuy xaar mooy état bi jël des décisions joxe des instructions fermes ba pare teg des jalons d'une restructuration au bénéfice de tous aussi bien des clients des partenaires que de la direction générale que des travailleurs kon ci remaniement ministériel bi ñuy euh, lamlame ni dina am wala du am bu fekkente ni am nga am na plutôt euh, est-ce que yéen xaar ngeen comme ça poste am DG bu bees pour mën a DG bu bees ça dépend de la de de la vision du chef de l'État c'est lui qui nomme les fonctions militaires et civiles moom moo am prérogative nommé mais ñun man de si travailleurs yi ñu daan wax naa di ñaan ne bu ñuy joxaat DG na doon un DG boo xam ne par appel à la candidature lay doon c'est pas un ñun noonu on nous voulons plus d'un DG ba nga xam ne day ñun ñi dañ koy xoolee que ne politique moo tax mu ne fi bien vrai que ne képp suñ fi nommé rek am nga euh, background bi am nga capacité qualité yi am nga diplôme yi nga xam ne war nañ la dénk kër gi mais boo amee une politique rek. automatiquement surtout boole si nag nga bokk parti au pouvoir sénégalais automatiquement dégg naa wala kii politique moo tax mu ñëw fii bu ñëwee day jël entreprise def ko entreprise politique di def def ay recrutement politique te fii ñu toll jamono fi mu toll entreprise nationale que c'est que ça soit public ou privé il faut faire un appel à la candidature pour donner la chance à tous les sénégalais ñu mën a doon kilifa foofu si entreprise man lool sama loolu mooy sama xalaat mooy bëgg-bëggu postiers yu bëri. Euh, voilà tey jii ñu doon euh, laam-laame ñu doog a jógee ci campagne euh, électorale bi élection législative yi jàll mais ñu bëri di wax ni euh, DG wu poste bi di Abdoulaye Bibi Baldé dafa jëloon oto yoo xam ni ci service su post la ñu war a dox dem di ko campagne ba am accident bu ci am am oto bu ci yàqu yow en tant que syndicaliste bu nekk ci biir post bi ban yàq ban xalaat nga ci am. waaw information boobu man ma Sénégalais yëpp ñoo ko yëgatoo à travers les réseaux et la presse ne gis nañ autoposte bu def accident au retour de la campagne gëstu bi ma si gëstu parce que je viens tout juste de raccrocher avec des collègues qui sont à Kolda ils m'ont dit que euh, boobu dafa doon yóbbu ay parents wu DG si benn cérémonie quarantième jour bu benn tante wu DG bu génnoon àdduna man nag si information boobu laa mën a fiyewu quant à l'utilisation des véhicules de l'entreprise pour la campagne si l'information est vérifiée. Si c'est on l'a utilisé pour des fins politiques là je fustige information bi ma si am laa mën a wax mais kon ni ñu ko décrié woon si ancienne direction wala si yeneen entreprise nationale yi ñuy fii nekk si Sénégal utilisation moyen d'une entreprise à des fins politiques pour ou bien pour une campagne c'est des choses à déplorer et à bannir man si logique boobu laay doxee parce que fustigé woon nañ ko ci élection présidentielle deux mille dix neuf avec l'ancienne direction qui avait monopolisé beaucoup de véhicules de l'entreprise ñëpp gis nañ ko image yaa fi ba léegi et aussi parce que oto bu dem rek day am ko koy dawal wala am ñu mu àndal loolu wàññeeku na wax dëgg yàlla wàññeeku na e, élection yi amaguma firnde que ne campagne bii bi Balde yóbbu mu la oto mu ñu àndax moom si ay convoi mais bu fekkee loolu def na ko on on on le fustige ko rafetlu Euh, Siré Dia utiliser wala beneen entreprise de la place def ko parce que c'est les biens de tous les Sénégalais on ne doit pas l'utiliser à des fins politiques parce que ñun yàgg nañ fustiger yàgg nañ wax ne l'administration sénégalaise on ne doit pas politiser l'administration donc bo boo boo nekkee ci taxawaay boobu nit ki lu mu la jigéen jigéen wala lu mu doon sa collègue wala sa kilifa fekkee day doxale loo xam ne day politiser entreprise da ngay taxaw wax ko ñun si si foofu lañ taxaw mais situation bi am démb parce que tamit bu mbir amee dangay ngay da ngay gëstu da ngay laajte man information yi ma si am oto boobu dafa jóge woon pour dem benn cérémonie religieuse fekkee tamit nag durant la campagne parce que j'ai pas eu écho durant la campagne que moom utiliser na ko mais bu ko utiliser woon tamit dama koy fustiger il faut pas politiser l'administration on n'est pas d'accord pour mom pour keneen ak keneen que ça soit la poste Sonacos wala feneen ak feneen les les biens de de l'entreprise nationale doivent rester pour le fonctionnement d'une entreprise nationale loolu moo si suñu bokk ngeen si ñuy demandé démission Abdoulaye Bibi Baldé euh, wala euh, jàpp ngeen ni problème poste du Abdoulaye Bibi Baldé mais état wu Sénégal la. ah man de syndicat bi ma nekk wax dëgg yàlla demandé wu ñu dem SLTGP parce que dañuy constaté que ne moom avant muy ñëw suñu entreprise presque ndërmeelu na woon bi mu ñëwee nit ku nekk nag sa akulaay taalaa ngay bi ñu mële nañu ci vision associé nañu ci te lépp lu muy def dafay concerté wu boole ci les partenaires sociaux dans toute gestion nag tout tout n'est pas parfait bu ñu gisulee loo xam ne doxalin bi baaxul dañ ko koy wax mais kuy teg plan stratégie de développement mële la ci du début jusqu'à à la fin conclusion yi nga bokk ci comité yëpp plan de relance bi ak nga xam ne direction concernée ak service concerné yi lépp lu ñu ciy def ñu ngi la si associé kon gestion antérieure bi la situation bi indi entreprise bi on peut dire que c'est des responsabilités partagées mais du ko focaliser ci benn nit boo xam ne bi muy ñëw fekk na kër gi suuxu ba pare nga ne moom moo ñu gën a suuxal kon ñun tamit ñun en tant que personnel <coughs> en tant que travail nous on a aussi notre responsabilité parce que conscience professionnelle dafa war a tax ñun sénégalais actuellement ñu changer de paradigme xam approprié wu entreprise bi mais DG bi gënuñu ko bëgg wala gënuñu ko moom ñu def plus état bi am na si part de responsable parce que l' état du Sénégal depuis plus de vingt ans n'a pas investi à aucun projet du groupe La Poste alors que nous on a mis en place sur la table aussi bien de de de, l'état que du ministère concerné des projets que que ñun am mën ñu ko financer suñu bopp wala état bi jàppale ñu am ay partenaires ñu ñu koy financer des financement extérieurs wala mu boole ñu si fonds universel ñi euh, nga xam ne ne ARTP moom moo ko téye parce que ASCP tamit dafa doon fànn fànn boo xam ne état bi moo ko créé mais pour mu jàppale di contrôle di réguler les services communication ak poste kon lépp loo xam ne lu jógee ci état bi war ñu financer pour ñun suqale ko depuis de vingt ans projet yi xalaat yëpp si seen compétence ak seen qualité état bi financé si ci dara état bi accompagné wu ñu sur le plan financier accompagné wu ñu boole ci amee loon ñu ay bor. sur ci bourse familiale yi ak ci rémunération du service bi nga xam ne. depuis bi ñu créé poste séparé ak poste sénatel ba léegi yokkuwul ñun ñuy demandé ñu revaloriser ko réactualiser ko revaloriser ko yooyu yëpp état bi waxu si lu leer kon état bi sur le plan financier euh, taxawaayam des na trop trop si post bi ñun loolu la ñuy déplorer mu financé ñu bu baax investissement dafay ay investissement boole si yokk suñu rémunération du service yóbbu ko si niveau boo xam ne méngoo naax ñun service public bi ñuy def parce que nous sommes présents partout au Sénégal boole si bourse familiale yi ñu dénk ñu koy fay mu koy teel a financé dañ ñuy fay ba pare mu ñuy remboursé parce que loolu indi loolu nañu boru quarante trois milliards ñun daal loolu la ñuy ñaan état bi mu recevoir les travailleurs surtout les secrétaires sociaux et les toutes les organisations socio-professionnelles mu financer les activités les projets du mu investir si mu yokk suñu rémunération du service public ba pare mu accélérer la restructuration sur entreprise euh, ba léegi euh, gëj nañ leen a dégg ngeen yëngu-yëngal yéen waa poste élection yi euh, passé na est-ce que mën nañu xaar ay yeneen yëngu-yëngal pour poste ba a suux. waa bu fekkee état bi moom réagirul te dinañ dinañ yëngalaat parce que on ne peut pas toog di xaar di toog a toog toog ba nga xam ne on va mettre la clé sur le paillasson parce que fi mu nekk nii actuellement au moment ou je vous réseau bi dafa am problème de liquidité. loolu sa problème si ñun la boole si la gestion du personnel tous les postiers sont inquiets bi état chef d'état waxee il paye euh, on paye beaucoup de postiers à ne rien faire ñëpp si nekk yaa ngi toog di xalaat la plan social comment ça se dérouler parce que plan social benn fànn la si restructuration bi ñun daal dinañ déroulé waat notre plan d' action. ñun suñu organisation syndicale te ñeneen ñi tam xam naa ne duñ nas te nous sommes en train de réfléchir de voir de mettre en place un cadre unitaire fort boo xam ne dina gën a jël en en compte les les soucis des des parce que xeex bu séparé bi dispersé bi du ñu indi lu il faut que ñu am union gën a dëgër gën a boole en tant que parce que syndicat yi fa ne xaw la bari. mais ku nekk bu naree demal sa bopp di xeexal sa bopp voilà état bi danaa ñiy déggoo ñu sax du ñu déglu loolu tamit point la mais on va encore dérouler à la sortie de ces élections parce que boo instant période élection bi boo doon dérouler duñu la déglu sax ils ne déglu ils ne vont pas parler de, on va dérouler un autre plan d'action parce que fi mu ne entreprise bi doy na waar ñëpp inquiété na ñun ñëpp tiit nañ suñu avenir suñu emploi. Gorgui Yacine Boye euh, Rewmi FM mi ngi lay jaajëfal. man maa leen di gërëm di leen sant di ñaan na li ñu wax nii rek mu yeggee si autorités ba ñu gën a gëstu ba ñu gën a jublu si entreprise bi. merci beaucoup voilà may fàttali yow yaay secrétaire général bu syndicat libre des travailleurs du groupe de la Poste. merci madame.